yaakaar ne lii dama ko nangu eh, bye. boy naka la moom ñëwaat nga maa nga jàmpe waaw oh, maa ngi nii waaw dama ñëw kay pour liñ doon waxtaan anu. ah, ya. noonu waaye ya. li nga nekk nii waaw man nag instant bi dama nekk di problème bu mag a kan man ak Idrissa Seck itu Seck ñoo nekk léegi dama gis dama gis journal bi bind ci man benn article. ci yow way Patin la faux milliardaire Patin le faux milliardaire lañ def te loolu du dëgg Patin la milliardaire nit du soxor il faut ñu nangu gis nga boo nangoo lu yàlla dogal doo sonn sax xel di jeex parce que bu ma ñëwee ni mooy boole kii Idri kii gars yi tuddee nitu Thiès te yenn Thiès waaye di ko bañ ama mooy moom xam nga ñëpp xam na ñëpp ñu ne. terrain bi nekk fii ça coûte deux cent cinquante millions xaw ma cinq cent millions xaw ma quatre cent milliards terrain quatre cent milliards. vingt milliards xaw ma lan. waaw waaw waaw vingt waaw waaw mu ngi nii vingt milliards vingt milliards loo xam ne sama terrain la xam nga. sa terrain la sama terrain la tey bu ma toogee dama gis ñu naan Patin ak Idrissa Seck tu es plus riche loolu du xew loolu loolu Brésil Bambey la maa kii ku ëpp xaalis.

bañ ko defee Sénégal man maa jël premier kon xam nga du ma ku ndaw. doo ku ndaw ah. tey bu ma toogee waa journal bi sax dañ ma yëpp su ma paree dinaa woo sama avocat pour ma xool ndax du ma dem si ñoom ak yoon parce que boo may tekkale ci xaalis man ay ay Messi nga may tekkale ay Cristiano Ronaldo ñooñu sax bàyyi naa leen xam nga ay ay jarul ay 50 Cent ñooñu sax bàyyi naa leen. bàyyi naa leen parce que man bu may mujjee def man sama compte bi dafa waxuma la trop élevé trop trop trop trop trop élevé. wàññi trop yi waay. non. non wàññi trop trop trop trop day day day. xam nga ñaata moo nekk sama compte. xaw ma kay quatre cent cinquante milliards. quatre cent cinquante milliards moo nekk sama compte te dama ko bloqué fii toog naa treize ans dugaluma sama néeg man sama kër fii fii fii nga may fekk may toog nii fii tam fii. kër gi ma dama ko kii rek dama ko àll benn entreprise buy liggéey liggéey bu ma neex maa ko jël àll leen ko xam nga ne kër gi sama kër la mais fii su ma ñëwee dama fiy toog moo tax ku ñëw fii la may fekk dama ko àll benn entreprise kàddu yarax xam nga leen. xam naa leen dégg nga leen. dégg naa leen àll fii xam nga parce que li ñuy liggéey c'est extraordinaire ñu ngi ñu ngi ñu ngi def lu am solo di.

loolu sama idée la théâtre forum maa ko xalaat. ma ne dañ moom ñetti pàcc ñu koy séy. Ah. waaw mooy. jokke. jokke. waaw waaw maa ko xalaat sama idée la. Ah, sa sama idée la. sama idée la loolu ba ma koy xalaat maa ngi lekk ndaamaraas. ndaamaraas maa ngi waaw. jël ndaamaraas bi xàmp dindi xoox bi ak partie bu des muy trois parties fa laa amee imagination bi ma xalaat ko. ba ma gisee nag ñoom ñu jël ko ñoom layti ñoom jóol jël loolu di ci xalaat mu nekk lu ma neex ma toogee ñu may booleel ki nga xam ne élection daaw ba mu jeexale maa ko lebal deux cent milliards mu campagner ko mu génne deuxième kii ma xool président ñi ma mës a financé Sénégal ñu ñu ma wax ñu ma tekkalee ñii ñëpp financé naa leen. kon ñëpp dañu laa tëkkal ak ñoom ñëpp lañu ma tëkkal ak ñoom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ñoom 10 ñii xam nga ay kii xool kii xoolal ki xoolal booy nii ngay gis nii gaal gi sama gaal la maa leen doon dimbale pour awloo leen yoonu mbuur bi xam nga man mun naa ñëw ba mbuur ma tourné su ma tourné ma xam yoonu Espagne bi jël si ñii maa leen yóbbu ba ñu dugg. Espagne waaw Espagne léegi ñoom ñoo def benn vidéo di ma sant di ma gërëm ci jàppale gi ma leen jàppale ma ne leen garaawul man loolu laa fi nekkee man damay dox ci social. mais est-ce que yow. waaw yaa di jàppale sa bopp ni ngay jàppalee nit ñi itam doy na waar. non man sama bopp lu ma ci jàppaleeti man macha allah fu mu bëgg dem ci àdduna bi dem tukki naa fu ne dégg dégg naa trente langues. trente lang trente langues laa dégg. dem capital yi nekk ci àdduna bi yëpp Afrique dama ko wërngal këpp Afrique dem naa Nigéria Ghana Congo Togo Mali Gambie Burkina Faso Johannesburg hmm? Johannesburg waaw Johannesburg mooy capitalu les sud africains les Bafana Bafana ba ñu toogee que xam nga drapeau Sénégal ay jamono Macky Sall kii monsieur le président Abdoulaye Wade woowoon na ma pour ñu saaga ko ma ne ko non dañoo ñëw fekk ko fi nañ ko bàyyi ni parce que verte zone rouge étoile bi dafa am lu ñuy wax nañ ko bàyyi ni waaw mais dañ ko bëggoon def non étoile bi li muy pàcc yi muy wax dafa bari étoile bi day bokk ci symbole daa bokk ci suñu symbole réew ma ne ko nañ ko bàyyi nii est-ce xam nga étoile pour man cinq continents yi la benn la rek benn la rek loolu yëpp benn te loo ci xamul gars yi bañ ma woowee daf ma waxoon drapeau bi dañ ko bëgg def changé def ko zone noire mën ko noonu loolu couleuru taxi la kon dañuy jaawale taxi ak suñu drapeau bul tax étranger yëpp ñu mu ne ma ok tu as bien fait. mais yow comme am nga alal yenn alal yi. oui yàlla dimbali la. waaw loo wax ci dëkk bi ñii ne waaw. waaw waaw loolu du man loolu suñu borom moo ko def loolu.

suñuy richesse lay lay suñu fee ay or ay. waaw mais xanaa mais uul ak or. c'est la même chose yëpp a zone. uul ak or ñoo yem. ñoo yem bindal uul bindu or or nga bindu uul c'est la même chose rouge bi danger moom ñun Sénégal dañoo danger <laughs> boy man xam-xam laa lay wax. mais sa soo sa affaire du sooy. rouge bi nga wax nii. suñu maam yi tuuroon seen deret la. deret yi. si jamonoy xeex ñoom la sama maam sama papa ci la bokkoon. sa papa yow sama papa ci la bokkoon. ñu dóor ko quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf balles. mais dara duggul bal yi dal di wat. kon kon non bokkul. gars yi nga dégg tubaab yi naan quel acier quel acier quel acier. dañ koy màggal chaque année. quel acier sama waaw quel acier. xam moom acier la woon ba muy dem si guerre. sa papa acier la woon bu mag. acier bu mag acier bu mag xam nga dégg naa la dégg naa li nga wax li ma mën pour def ko dinaa ko def dinaa def tout ba jàppale la nga bokk ci ñu nekk ci kaw a kaw. waaw léegi sax loolu moom a gënoon indi euh, ma ne woon dafa am kenn ku ma waxante mun ma fi mu toll nii pour clip bi ñu doon waxtaanee noonu moom instant bi dane pour ñu jox ko avance mais avance sax bu ñu ko jox lu bëri mais nañ ko jox 200000 rek. nu kooku fan la ne. Suisse la nekk. Suisse. waaw nu mu tudd. Ablaye Diouf. Ablaye Diouf Ablaye Diouf mais kooku samay cadre man dama am te am ay cadreur qualifié cadreur international man sama cadreur yi xam nga leen ki ma la présenté. waaw ku xees ki. waaw nu mu tudd. Aliou Aliou. waaw Aliou TV5 la jugee. TV. TV5 la jugee. mais Aliou Aliou moom masul tukki de. kan non TV5 la nekkoon yow dalee da leen koy nëbb keneen ki xam nga ko. waaw tax nu mu tudd. Bunaama fu mu ah, moom rapporteur la woon. moom moo doon ba ba Messi di dugal bii bu rëy bi moom moo doon xàq katiri Messi xàq katiri Messi góol. góol. loolu wax dëgg waaye. booy nañ bàyyi bi. non mais nu ñu bàyyi clip ma la wax kii dafa yomb mënoo ko def kay. nga ma ay góol di ma um. donc boo ñëwee wax ma tey ka ku la bëgg kilibal te man ma koy financé yore sama tele du ma ko bàyyi man dama bëgg lu yóbbu Hann ci kaw ca kanam dama ko bëgg gis. léegi laa lay wax léegi nañ toog ñu ak waa Hann TV ñu waxtaan ak ñoom su dee ne man. non loolu jarul waxtaan yaa may wax jour bii laay tourné ma ne leen dem leen tourné ko c'est déjà calé. suba nga ngay tourné. suba ma lijjanti hôtel bi. suba suba amul problème suba booy ñëw. suba nga ñëw ñaata fecckat nga soxla. 15 fecckat ak baax 15 fecckat. waaw amul problème mais après tam bon Aliou waxoon na yow. dafa léegi fecckat yi dinaa la woowal ñaari fecckat fecckat yi dëkkuñu Dakar nag Tamba lañ dëkk. kan ak kan El ak Ndiobu Demba lañ. non yow soo jiitewu fecckat yi ñoom duñu mën a def. kan yow il faut nga jiite yi. man wu rek kan ndax cabinet. yow bu dem duus gin jàpp ak gin ñëwal. wu rek kan ndax cabinet. yow bu dex dem duus pont. boobu laa la feccal. a ah, baax na man maa lay déglu fii ak suba. amul problème amul problème ma xam nga kan laa doon feccal xam nga Kanja Kuyaate. Kanja Kuyaate. meew la xanaa. non Kanja waykatu ah, Mali la maa leen doon feccal ay Salif Keita. Salif Keita mel. Salif Keita ay Jaliba Kuyaate ñooñu maa leen doon feccal. mais ah, baax na léegi man naa la xaar. ok suba y' a pas de suba booy man maa leen ne demee nga ñëw. ah dëgg la nga sol bolok ah. bolok waaw. li may wekkee mu traditionnel kay mais man sama gàddu ngay bàyyi foofu waxal léegi. kan waaw si kanam booy dégg nga. baax na baax na waaw ok. waaw mooy da ngay bàyyi ba ma woo la nag ah. ba baax na. waaw da ngay bàyyi ba ma woo la a ñëw. non non suba na waaw dégg nga merci beaucoup. naa la way fii tiital ba sama xar bi dee. dama yàq sama xaalis si yow munoo way sooy way sambay bayaane